الحمد لله رب العالمين كن بوكي نيو ديل سوات سي لغي بي لك لك نون لاي دمي واي نك لب يو لا تني سخ باخنا كوم سا نيو مانا ديم دو مانيير تري ميثوديك ndank ndank ba li ñu bëgg yëpp mu dugg ndax ki ñu jëflanteel euh, du ko ndaw kilifa la borom xam-xam la te ku bari taalibi la Euh, ku bëri ñu ko gëm la ba ci euh, tabaarkallaahu monde scientifique bi ñëpp koy déglu waaw kon nag dañoo toll woon ci xaaj euh, Njóobu Mbooj mu ñuy expliquer yi argument yi lan la Hawking weddi ak argument yi mu indi mooy fi mu wéeru ba weddi yi mu weddi foofu lañ tolloon xaaj Njóobu xaaj Njóobu wa waaw bismillah kon kon dan lay may rek nga nga agale ci fi nga tollon wa wa wa wa bismillah pour ma pour ma pour ma waxaat rek mooy biñ euh, ko woon ni ko mom da ci limu mu ci limu mu ci li mu wéeru waaw euh, mooy moom dafa wax ni li nga xam mom lañu wax mom lañu mom lañu wax muy big bang big bang bi nga xam mom lañu wax ni euh, aduna bi dafa ben ben ben donc boobu nag bu mu explosé moom moo indi lépp moom moo indi univers bi li mu nekk nii ni mu ni mu nekkee ak ak ak ni mu positionné woo parce mhm. que loi yi nga xam ni moo ci nekk gravité beeg euh, mooy euh, suñu ne gravité gravité mooy li nga xam ni bu ñu bu ñu bu loolu mooy tax ñuy mën a dox ci kaw suuf li tax li tax naawuñu li tax tamit bondewuñu gravité boobu moom mooy tax ni mën a euh, dox ci kaw suuf loolu ci loi yi nga xam ni moom mooy moom mooy moom mooy doxal àdduna bi ci la bokk. Mhm. muy daal loolu lépp daal ah, loolu mënut a jugee ci ci ci euh, mu ni mu ni loolu bu amee. Hmm? Mhm. allo. waaw waaw bisimilah ñëpp a ngi lay déglu xaaj. waaw mais mu ni mu ni mu ni loolu tamit moom su fekkee am na su fekkee dànk boobu tamit moom moo moom moo moo ñëw fii nii. kon li nga xam ne moom moo ko nekk ndax ndax euh, ñoom de euh, scientifique yi dañuy wax toujours ni rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme yaakaar naa moom la ñuy wax donc kon bu ñu waxee ni li nga xam ni moom moo constitué univers bi mooy li ñuy wax ay électrons ak ay protons xam naa scientifique yi nga xam ne ñu ngi ci biir ñoom ñoom c'est moom ñoom yeneen yi. Mhm. Euh, ñoom dinañ ko dinañ dinañ ko mën a expliquer mais. en résumé rek mooy proton yi ak euh, électron yi nga xam ni ñoom ñi ngi nekk ci ci particule particule mooy en euh, fait mbir yu ndaw la yoo xam ni a ay loolu daal moo ko constitué xaw ma nu ko mën a expliquer terme bu gën a leer mhm. waaye loolu mooy loolu mooy loolu mooy euh, loolu mooy élément yi nga xam ni ñoom ñooy nekk ci ci ci ci ci yëf yi ci lépp mhm. loolu nag léegi noonu tamit am na fu ñu jóge mhm. mu ni kon tamit bu créé benn masse bi nga xam ni moom moo créer suñu univers bii nii te point bi euh, mbir bi nga xam ni moo dankaloo ba def big bang ba big bang boobu daal di créé suñu univers ni mu ni kon kon ñu big bang bii kon nekkul benn big bang rek moo am mu ni mais am na yeneen big bang yu fa nekk am na yeneen big bang mu parce que li nga xam ni moom moo créé euh, dànk bi nga xam ni moom moom moo def bi nga xam ne moo explosé ba indi planète yeeg indi lépp comme organisation bi mu demee noonu mu ni am na yeneen feneen moo tax mo naan tamit am na tamit li ñu ay univers parallèle mooy maanaam ñun suñu univers bi ñu nekk nii am na yeneen univers boo xam ne ñoo bokk même même bi mais am na feneen fu mu nekk ñun ñoo ko xamul lépp loolu moo tax mu doon tamit ni am na tamit yeneen mbindeef yu dund waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw mu ni am na tamit yeneen mbindeef yoo xam ne extraterrestre yoo xam ñoom. ñu ngi dund feneen mais ñoom mën nañoo ñëw ba fekk suñu fi ñu nekk comme ni ma ko waxee dem daan ñuy jàppee ñu naan ay ra ay ay ay kobaay ay ay yoo xam ne dañuy jàpp comme ay comme ay ra comme ay jinax lañ ñuy jàppee pour massacrer ñu loolu lépp loolu lépp tamit ci ay théorie la wax na ko mu ne parce que moom le fait que mu wax ni euh, dafa dafa mbir yi dafa am kenn ku nekk ci ginnaaw bu ko bu ko créé à partir du Big mu ni ci loolu lépp dañ mu ni mu moom loolu loolu moom gëmu ko mu ni parce que

jar na ci ñëwaat pour mu gën a leer wala. waaw waaw euh, boobu boobu leer na kon moom dafa dafa weddi ne par exemple l'unité de de de l'existence boobu noonu. Euh, moom amul c'est-à-dire que il parle il parle pas d'une existence mais d'existences au pluriel. d'existence waaw. c'est-à-dire que kon bu dee euh, dafa ma ay existence donc ay origine yu bëree bëri bëri lay doon. parce que ñun dañuy wax ne monde bi même si alquran sax loolu la ñu wax alam yara alladina kafaru anna samawati wal arda kaanata ratqan mooy cette masse compacte dont tu fais euh, à laquelle tu allusion fa fataqnahuma moom la ñuy wax le big bang wa jaalna min al maai kulla shay'in hayy donc nous avons fait de l'eau toute chose vivante donc moom dafay wax ne du benn big bang mais ay big bang yu bare bare bari la d'accord donc bien que inshallah allah duñ ñëwee bu subaa dinañ ko xamal big bang yooyu muy junj te mom xamul big bang yoy lu doon lool il faut nga dem ci nit yalla ñom ñu expliquer le lu mu doon inshallah parce que fofu ngay comprendre la différence entre le fatq avec le qaf à la fin et le fath avec le ha à la fin Bokul. fatq ak fath bokul. yoy yëpp ay big bang la mom nak dafa jaawatle fath ak fatq inshallah allah bu suba dinañ ko leral deug la <laughs> waaw moom nga. moom daal ah. eh, loolu la wax. bismillah daal na. te na bi bi mu amé paré pare tamit loolu. ni mu amé mhm. ni nee tay une continuité mu ni parce que amna lé le amna ah, lé lu wara amat amaat. ne big bang bi ni mu ni mu ni ko ni amé fu mu jugee ba am. té loi de la nature nee mom tamit continuité la. waaw ni amna na lo xamni ah war na mën ci ginnaaw. waaw loolu moo tax ma bëggoon ko séparer nii comme ça ñu ñu mën a xam ma xamul exactement ndax c'est bien mais loolu daal la wax. c'est parfait bi am na bi am mhm. ba lii pare ni am na loo xamante ni ba mu amee ba pare. Mhm. di bang ni mu ñëw nii. Mhm. ni am na leen loo xam ne tamit war na amaat après. kon mbir kon dans la dans la nature yëf yi lépp continuité la. waaw loolu loolu la loolu la loolu la soutenir bu baax a baax a baax a baax. mën nga mën nga avancer loolu loolu leer na na ya ah jàpp naa ni lu leer na ci bopp boppu gaa yi. waaw euh, maa ngi gis fii nag euh, pour jàppale la tuuti sa mbokk Haji Racine li moo ngi moo ngi jéem a moo ngi lay jéem a sànq bi xam naa lim la dégg ngay euh, taxaw ci wàllu matière. waaw waaw moom la doon moom la doon moom moo ngi doon participer noonu. di wax ne mu ne. matière bo gis ci atome la jóge te atome bu nek dafa composé d'un noyau et des électrons qui tournent autour de ce noyau mon nga le noyau lui-même est composé de protons et de neutrons mon nga kooku moom premier cours physique mon donc euh, waaw mon nga euh, loolu Hajj Racine moo la dolli ci waxtan wi légui bismillah mën nga mën nga mën nga wéy ci lenen ci benen point bo xamanteni japp nga ko ci euh, mbiru Hawking ak argument scientifique yi mu indi pour pour pour dëggal ko waaw bismillah bismillah dëgg la alhamdulilah hmm. a que defee maa ngi maa ngi remercié euh, Thierno Racine tamit moom <laughs> xam naa ni moom moo ñu gën de gàll ci yëf yi waaw moom day <laughs> mais moom moom chaque fois rek <laughs> waaye moom waaw bongal moo ñu gën a kii de waaye daal mi baax na nag lépp jiw la rek moom chaque fois moom dañuy dañuy jàng lu bari ci moom. dëgg la vraiment baax la ku kii la yal na yàlla duggal fanam vraiment. amin amin li muy def def moo ko xam ko yàlla defal. amin ak yi nga xam ne ñu ngi ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi def vraiment ku nekk la lañ nekk sa xol rek yaa ko xam yàlla ko yàlla defal. amin amin sallallahu alayhi wa sallam. ngi koy ñu ngi koy ziaral de passage. ndeysaan bisimilah. waaw donc mi baax na. <laughs> d'accord mi ngoog léegi tamit Serigne moom tamit ci la ci la ci la waxaat tamit ni euh, moom problème majeur bi mooy mooy loolu bi mu amee tamit euh, bi ñu waxee ni euh, yàlla moo ko créé mais moom dafa waxoon ni avant loolu temps amul woon muy di nga dem benn instant boo xam ne boo ko remonté da ngay dem ba temps am mhm. mu ni temps bu amul kon yàlla du am parce que yàlla pour mu am il faut mu am temps xam ne moom ci lay pour mën a créer dara. ok ok. loolu wax na ko. Mhm. baax na expliquer ñu loolu. Hmm? ma ne expliquer ñu loolu. waaw moom moom li mu li mu li mu mënta concevoir daal mooy parce que moom niñ ko niñ ko jàppee mooy mbir bala ngay comme ñun ñi ñun bala ngay bala ngay jàppee bala ngay mën a bala ngay mën a créer dara wala bala ngay mën a samp ab garab. il faut nga judd ba pare waaw da ngay am bala ngay amal yow da ngay am ba nopi yow da ngay am ba pare waaw waaw kay avant ñun fi ñuy amee mooy dafa am benn temps boo xam ne moom ñu régir mooy temps bi ñu xam ni waaw ñu sukkandiku pour mën a am pour mën a màgg mën a fonctionner mën a évoluer ba suñu xel fi muy màggee pour mën a xalaat ni garab war nañ ko mën a def samp garab googu noonu toog di xaar mu mën a dox kon ñoom bu ñu waxee nañu garab bi kan moo ko samp kat dañ naan ah jiw wala ñu ni racine moom moo samp garab yi fii mhm. comme moom moom puisque temps boobu amul moom nee na kon yàlla mënul mënul mënul euh, mënul mënuñu sukkandiku ci temps pour wax ni yàlla moom moo mën a créer bay wax sax ni yàlla am na mu ni parce que temps boobu moom moo moom moo amul woon avant ok donc possibilité yàlla exister wala wala wala ab mbir buy créer ab dara nee na mom mën ta nek mhm. waaw loolu daal la wax sëñ bismillah d'accord baax na yi ñuy wax ni na ngeen ko noter bu baax c'est très important euh, ndax inshallah bu suba ci lañ wara a ñëw donc euh, Hadj Racine ak mbokk yi nekk en ligne na ngeen ko bind en commentaire c'est très important ñu noter ko limu wax ci walu existence yi donc, il ne parle plus d'existence euh, euh, au singulier, mais au pluriel. Donc, euh, mon premier point bi deuxième point bi mu wax son moom sax doo xoolee man bi ma ay bindam dama seetlu ne problème bi mu am sax le temps mooy problème problème mon temps problème mu temps mooy vrai vrai vrai problème mon moom Hawking te nag temps moom mënoo koo comprendre te ñëw ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko comprendre mënoo comprendre temps. xam temps te ñëwoo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mënul ñàkk donc euh, macha allah ñaareelu point boobu am na solo loolu na ngeen ko en commentaire ñu mën a avancé kon bismillah Ndiogou bu dee am na leneen lu lu mu lu mu lu mu weddi tamit wala yenn argument yu indi tamit ñoo ngi lay déglu. waaw daal euh, yooyu daal après tamit ci la indi ay yeneen bi parce que après li muy ñëwaat yëpp yaakaar naa. Mhm. ci man li xam euh, yooyu daal laa ci yeneen yi nag yi nga xam ne moom la moom la moom moom la gis dafa nekk daanaka ay euh, ay euh, ndey sax ay branche ci li mu wax mooy ci la wax tamit ni am na ñeneen ñoo xam ne ñi ngi judd ñi ngi nekk ci yeneen ci yeneen ci yeneen dimension ñoom mën na nañoo mën nañoo ñëw ba sekk si ñu coloniser ñu mi ngi waxaat aussi tamit euh, ci affaire trou noir mu ni comme ni ñuy waxee rek ko waxee woon démb mu ni ñun dañuy dem. ba mëna ba suñu suñu terre bi aussi day nekk euh, day mujjé nekk un euh, un trou noir parce que euh, nit nit nit day yàq nit kat la donc te lépp lu mu gis aussi da koy yàq mooy surconsommation beeg mooy mbir yi nga xam ne daal ni ñu koy def. Mhm. tout le temps da nga xam ni chaque fois day day day dafay dérégler li ko li ko li ko wër yëpp. Mhm. ni ko mooy.

Hmm. mel ni kuy remonter le temps jëm ci yeneen dimension di fa découvrir ay yeneen mbir. loolu la ñuy wax les films fantastiques. les films fantastiques waaw. Hmm, hmm. am na ci am na am na ay récemment rek ay Avatar am na yeneen. film Avatar effectivement. waaw Avatar ak ñoom ay ay Will Smith mooy Prince de Bel Air Will Smith mooy seen film yi nga xam ne dafa amoon ay invasion d'extraterrestre. waaw parce que ñooñu ñu ngi ci ci beneen dimension parallèle. ak ak kii ay robot ay robot lañ koy wax. i robot quoi i robot ay robot. waaw jàppatuma tur bi mais xam naa film filmam la bu robot yi euh, robot yi dañoo mujj def euh, genre genre révolution muju di xex ga nit ñi di ray nit ñi. am genre xel ñom am ben conscience di joy di di di am ay ay émotion di mongok mongok ay robot lañ koy wax i robot deug la waaw mom la mom mhm. la ko mom la mi ngi noonu mhm. moom dal loolu dal la wax ñen dal après dinañ am ay euh,

boo xam ne day day day euh, dafa am programme nekk ci ginnaaw. Mhm. chaque fois li nit waroon def moom moo koy def. Mhm. alors que kenn du fa nekk loolu mooy contrôle nit ñi nee na loolu mën na évoluer ba nga xam ni moom daanaka day mujjee autonome. Mhm. loolu ci biir intelligence artificielle la. bu demee boo demee tamit ci li mel ni ci carte yi. carte ci carte ci carte bancaire yi léegi moyen de paiement euh, affaire yi presque li lépp ay dérivé la ci biir intelligence artificielle. léegi mooy mooy comme ni ñu waxee rek ay prédiction la. donc suñu suñu suñu bu njëkk ba dañ daan dañ daan def trop dem ba ci yàgg ñuy def liquidité dem ba ci yàgg ñu commencé di di am ay carte carte bancaire fii bo ñëwee France wala nga ñëw Europe du Sénégal c'est léegi sax mi ngi ñëw mais par exemple bu ñu fii fii fii en Europe ñoom seen lépp c'est euh, carte la lépp soo mul carte daanaka presque yow tu es inexistant compte bancaire parce que achat yi nga def yëpp mën nga ko ci carte léegi nag dañuy évoluer ci beneen niveau mooy parce que nit ñi. dañuy dem ba nga xam ne après euh, sa carte bi sa carte bi dañ ko dañ koy dañ dañ lay dugal comme genre puce ci sa biir yaram comme ça yow doo fi nekk di fay par carte doo doo dara lay sonal puce bi suuf sa sa suuf day nekk suuf cutané ñu defal la ko comme ça yow booy booy euh, sooy jàllee da ngay teg sa baaraam wala nga teg sa loxo wala nga soit partie ba nga ko def rek automatiquement mooy paiement sans contact yi donc loolu tamit day am suite la suite la suite logique la buy ñëw loolu tamit ba après tamit Euh, day relier tamit ak euh, la pensée évolution bi ci ci foofu la jëm évoluer par la pensée loolu nak ça permettra aussi de contrôler nit ñi en plus grand parce que buñ buñ waxé ben action def ko te defoo ko dañuy dañuy dañuy gérer say parce que ils ont ils ont le contrôle sur tout ci lepp li nga xamni yang koy def loolu tamit ben ben suite la ci li wax ci walum intelligence loolu tamit benn la ben la dañuy dem ba après tamit yëf tamit dañuy dañuy euh, dañuy intelligent di créer ces yëf yi moom yëpp prédiction yëpp moom def na ko.

Euh, la création de de de médicaments, des effets secondaires qui sont organismes, nga xam ni en fait beaucoup ko faj sax da koy da koy calmer rek mais tamit ndekete ci suuf am na leneen lu muy déclencher par exemple boo jëlee suñ suñ par exemple pull comme pull yi nga xam ni pull du lendemain pour être pour pour exemple pour exemple nekk nekk exemple bu de a plus pull du lendemain wala comme pilule contraceptive uh-huh. yooyu boo ko jëlee après loolu da lay créer beneen beneen beneen maladie boo demee ba jëm mag fekkee ci jigéen parce que moom moo gën a dangereux boo demee ba commencé avec ménopause dafay créer beneen maladie lool peut être après Aïssatou moom dina ci mën a gën a xuus après incha allah donc mi ngoog loolu après mën na créer yeneen yeneen yeneen problème ay kyste ak ay yeneen maladi yoo xam ne day génn ci yow donc loolu tamit ci la léegi ci la wax tamit ni comme ñu bari ñi nga xam dañoo épouser idée comme nit ñi euh, dañuy dem ci surconsommation wala tamit dañuy dem ci destruction de la terre muy am na ñoo xam ne tamit euh, waruñu participer ci loolu léegi nag instant yi ñu am doom finalement dañuy def de trompe ci côté parce que nee responsabilité di di di indi ñu def il sera un consommateur un destructeur donc finalement lekk bi ñuy lekk ci àdduna dina wàññeeku naan bi ñuy naan dina wàññi moom moom dina am au moins une personne en moins dina am ñu bari léegi dañu jël seen i seen seen i volonté wax ne ñoom du ñu am du ñu am du ñu am doom góor yi ñi daal di ñenn ci góor daal di daal di dagg seen seen kanu yi yéen jigéen ñi daal di daal di ligature seen tronc su ko defee ñun ñi population bi day wàññeeku en en euh, bu fekkee jóge ñoom rek ñoom ñoom dinañ participer à leur manière ci loolu. Euh, arme nucléaire yi tamit day ñëwaat arme nucléaire yi kon ku nekk da koy am donc loolu tamit euh, mi ngoo ko day day participer ci destruction ndax arme moom boo ko amee tôt ou tard da nga koy dóor mënoo ko ñàkk dóor ndax mbir moom soo yoree sa pistolet chaque jour un jour viendra di nga koy utiliser donc loolu tamit la wax ni tôt ou tard eh, di nga utiliser sa sa arme boobu noonu te arme boo ko boo ko utiliser comme niñ koy waxee ci euh, comme niñ ko jàngee woon ci euh, Hiroshima destruction boobu noonu neen lool buñ ko bu ko bu ko ku nekk amee ba mën koo dóor fu nga ko war a dóor kooku moom moom moom destruction bi day day day total kon finalement euh, ñun dañuy dem ba la terre va s'enflammer donc mi ngoog rogo yi jël le contrôle ak prédiction yu bari daal daa wax na ko mais moom daal sañu moom daal en résumé daal ci man li ma comprendre ci ci philosophie mooy moom problème de temps la moom comme amul temps pour ab créateur mën a nekk ci ginnaaw pour mën a créer dara. Mhm. moom dafa wax ni moom affaire religion yi moom déjà gëmu ko loolu taxoon mu teeloon wax ni moom c'est un athée ngok soo xamul nag. Mhm. non non c'est parfait euh, <laughs> tabarkalla euh, euh, man du gis maa ngi lay déglu bu baax te man xam naa ni noonu la la mbokk yëpp di déglu yaa ngi wax ci ku waa ju dangereux moom ngay wax te man hmm. euh, yàgg naa ko bàyyi xel ndax yàgg naa dégg soxna si muy wax euh, benn collègue am bu mu doon bokkal di liggéey mais au te moom il est né musulman mais Hawking moo ko def yëfër te argument yu dëgër dëgër dëgër la yoroon waaw donc pour wax la ne la ñoo ngi wax ci waaju garaaw a garaaw joo xamante ni wax naa leen ne leen ah. bu leen bu leen xool se euh, euh, kiyam boobu euh, chaise roulantam boobu ak ñàkk bëñam yooyu ak kanamam googu pour sous-estimer ko déedéet ëpp naa ah. def waaw waaju waaju la joo xamante ni on doit le prendre au sérieux ah, parce que moom li muy def yëpp daf ko def ci sérieux donc am na ay ay ay ay perspectives yu bëri yoo dégagé donc man ci tënk Euh, li tax ma gis ne waa ji ku dangereux la mooy dafa mel ni dafa nar a jël euh, ni yàlla wax ne wala xad naa bani aadama doomu aadama moo que au sommet de la création moom dafa mel ni dafa dafay dafay prédire le renversement des rôles soit par la technologie euh, l'intelligence euh, l'intelligence artificielle wala ah. bok sax mbindeef yi ñu bokkal. Ah. xam nga intelligence artificielle ci le robot yu nekk ak ak yu yu demee noonu yooyu euh, yi nga doon expliqué. mais aussi ah. ñom dem nañ ba am nañ ben film bu ñu jouer bu tudd le la planète des singes. waaw soko xolé momit dafa melni ni kon animaux yi ñu sékkal ñomit du yàggee ñoom doo wattuwul ni ñu yilife woon jamono ñoom dinañu yilife noonu tëj ñu ci kaso di ñu di ñu di def euh, ay ay kobaay comme ni ñun ñu daan ñu daan jëlee yi ak singe yi di leen def ay ay kobaay. donc euh, euh, waxam tamit doo ko dégloo dangay gis ne waxul budul budul sunu ñooñu ñu bokkal jaww ji nii ak kii bi cosmos bi nii. existence bi nii mën na am ñeneen jóge feneen sax euh, def ñu ay affaire waaw dafa mel ni moom euh, xalaatam day jëm foofu donc waa waaju waaju waaju doy waar la te lii yëpp soo ko tënkee soo ko tënkee dangerosité bi moo ngi tënku ci benn kàddu moom lii yëpp dafa bëgg a wane ni yàlla amul ndax désordre bii ci doomu aadama yi désordre bii ci intelligence artificielle désordre bi ci animaux yi désordre désordre bii ci extraterrestre yi. waaw. Euh, moom dafa bëgg a wane ni monde bi kon day dafa am fu muy jëm rek day évoluer di dem mais amul ku ñuy li ñuy wax ci alquran mudabbirul umur mooy ku ku li anglais di wax kuy handle handle H A e, handle mooy. yor ay avoir les manettes quoi di di di di def di dindi di yëkkati di tek di def li ko neex innama amruhu iza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun di eh, di handle mom la bëgg wax ni amul te argument yi indi c'est grave parce que yi nga wax ni dafa raglu mën na am ñi nekk ci yenn réew yi xamuñu mais ñun ñi nekk fii ci Europe mais xam ni attention waxuma eh, machine yi ñoo ngi jël place doomu aadama yi ci lépp nag. machine yaa ngi jël place doomu aadama yi yow wax nga flash yi wax nga wax nga mais waxuma loolu sax mais li gën a sensible mooy euh, l'emploi soo ñëwee France fi nii moo ngi bëgg a toj li avec les gilets jaunes waaye tey jii bokk na ci ñi gën a sonal ñi liggéey am xam-xam daan taxaw di liggéey la nga téeméeri nit daan def ni mu benn machine mooy taxaw dàq ñoo ñëpp moom di ko def te du sonn du laaj lekk du laaj naan du laaj salaire <laughs> waaw donc euh, yooyu moo tax euh, Hawking dafa nekk euh, ku ku ku ku ku ku aérien mais tout ce qu'il te dit tu peux retrouver dans dans la vie quotidienne donc waa ju dangereux la te doomu aadama li mu gën a gaaw a gëm mooy li mu gis li mu jàkkaar lool li mu mën a laal donc mhm. euh, waaju waaju graw la donc so gisee machines yi machine euh, comme ni nga ko les ci carte bancaire yi machine ñoo ñuy fay machine lañuy jëndé machine lañuy machines euh, sax loolu yow moom yow yaa ko gën xam ndax loolu intelligence artificielle la te loolu ay algorithme moo koy def ay algorithme yoo xamante dañ koy njóogu lan algorithme ah, en fait algorithme c'est un

léegi na processus bi nga xam ne moom mooy moom mooy moom mooy euh, suite yi nga xam ne yaa ngi koy def suite d'action yi nga xam ne yaa koy def. Mm-hmm. pour finalité bi nekk yow nga naan sa café. Mm-hmm. ak sa bon goût ak nga sentir bien loolu mooy algorithme en manière de manière générale. macha allah plus macha allah. waaw loolu mooy mooy kii bi daal ni koy waxee. Ah. comme le processus bi ngay def nii pour. d'accord kon soo bëggee du tëjji bunt bi nga jug nga yëkkati. dox benn pas tegaat benn pas tegaat beneen pas ba tijji buntu bi génn ainsi de suite algorithme mooy loolu mooy mhm. mhm. use ça waaw donc léegi nag après nag li ñuy def mooy comme programme yi dañuy dañuy fexe juste utiliser benn langage léegi ñu traduire algorithme yi en langage ñu ngi mel comme par exemple ngay waxee olof nga ut kenn koo xam ni dégg na français wala par exemple comme ba fa Chérif bi mu fi ñëwee. waaw mi nekk France ba mu ñëwee wax arab surtout Cheikh bi. seetu cheikh ya, bi bam ñëwee bam ñëwee paru bam ñëwee pay mhm. wax arab yow nga toog nekk dégg la muy wax nga traduire ko pour ña nga xam eh, les profanes comme man ñi nga xam dégguñu ko pour ñu mën koo xam léegi iya, iya, iya. en eh, fait yow yaay moom mooy algorithme bi yow yaay programme bi nga xam ne koy traduire pour ñun ñi nga xam les profanes pour ñu mën koo comprendre allahu akbar je ya, pense juste ça ah. waaw kay kon kon léegi eh, pour être encore plus pratique jox nga ma ñaari exemple mais li ni ci amul euh, atu amul base du neex par exemple da nga tuddu centre lu flash kon machine bi nga xamanteni flashé ah. mom dañ koy programmer ne ko heure bu le auto bu vitesse ah. flashé ko di di Euh, le objets connectés les objets connectés dañ koy dañ koy defar. Mhm. dañ koy defar programme bu ñu naan Arduino Arduino benn kii la loolu mooy defar l'ensemble des objets connectés yi nga moom la ñu utiliser. muy mhm. flash yeeg muy lépp léegi loolu nag en fait dafa am ay programme ci biir dafa dafa am ay programme yoo xam ni dañ koy comme comme genre robot yi dañ koy dañ koy implémenter dañ koy def ci biir ñoom mhm. dañ leen jox ay ordre léegi loolu nag ñu ne ko bu àggee ci programme bi. ñu bu ko buñ ko buñ ko par exemple oto bi su dépassé euh, temps euh, vitesse sangam. Mhm. automatiquement yow photo te boo ko jëlee photo aussi après ñoom dañuy am capacité pour euh, récupérer la plaque parce que ñi bu ñu xasee wàllu identification plaque rek automatiquement dinañ mën a dinañ mën a dinañ la personne bi nga xam ni moom mooy moom mooy mën a moom mooy kii moom mooy. mooy dawal oto le conducteur ñoom tamit dañuy am base de données bo xam ni mi ngi ci ginnaaw ñom mohammed Dia xam nañ li may wax euh, benn base de données bo xam l'ensemble des personnes yi nga xam ni ñoom ñu fa. ñi am permis ñëpp euh, seen da fay nekk te fi man li ma gis ñoom li ñuy utiliser comme base de données pour mëna repérer nit ñi moy le numéro de la carte vitale parce que elle est unique à partir de la numéro de la carte vitale dinañ mëna a retrouver l' ensemble des l'ensemble des informations par rapport à une personne. dañu xam fa mu juddoo fa mu yaroo nangam fa mu jugee ainsi de suite parce que ci biir sa numéro carte vitale bi presque ngi ci biir moo tax ñuy wax fii tamit moo tax seen couverture maladie boobu ñuy wax tamit système la rek ci biir système yi pour mën a contrôler nit ñi. ok macha allah euh, yooyu c'est important parce que ay termes la yoo xamante ni euh, léeg-léeg day tiital nit ñi. te du ñu amee ku ñu dimbali rek ndànk yàlla mën na ñëw suturaal ba ñu mën ko comprendre mën ko jariñoo kon jërëjëf ci explication yooyu donc euh, ku déglu waxtaan wi di nga xam ni kon euh, euh, lii ñuy def nii lu lu sérieux la ndax kii livre bu ñu traduire ci 40 langues mu am près de 7 millions de consultations ci benn bés mais keroog bi mu gaañoo am ay taalibeem yu ko gëm fépp ci àdduna bi te koy défendre te léeg-léeg mu mu mel ni jaan jooju di naan caraax di jàpp ci ba ci jàpp ci xeetu yonent bi di leen weddiloo wala di leen gëmloo ay ay bêtises ak yu kenn xamul kooku war nañ ko étudier war nañ ko bàyyi xel ngir euh, budul dara sax ñu def ci très attention ci ay bindam parce que waaye jaloo waa waay waay waay jaloo wa waaye la joo xamante ni euh, rigueur juridique am ah juridique rigueur scientifique am dafa dafa doy parce que ñeneen ñi nga xamanteni am nañ xam-xam te sax seeni xam-xam euh, xam-xam aérien c'est des sciences aériennes mais mom xam-xamam dafa am relation euh, vraiment avec internet dafa am relation avec euh, le l'essor l'essor des sciences et de la technologie motax mom xam dangereux bu philosophie yi ngay dégg yëpp ak scientifique yu njëkk yi nga daan dégg ñu daan weddi yàlla ak yu demee noonu moom moo ci gën a garaaw ndax moom joomu sunu siècle bi la doomu siècle bi la moo ngi fii euh, année quarante yi lu juddu donc bërki démb la faatu euh, moo ngi fii ñu denc ko donc mu gis nga sax moom euh, ci gëstu nee nañu bi mu faatoo dañ ko lakk a benn butéel bu ndaw lañu la ñu def kiyam sandaram ah. donc dafa mel ni moom sax

donc euh, ki ci njëkk mooy xaaj euh, Racine donc nee na euh, waaw sëñ Mbaye sax Ndiaye Mbaye Fall Ndiaye moo njëkkee salaamaaleykum waa mbokk nous sommes fiers et contents de vous macha allah Mbaye Fall jëwriñ donc xaaj Racine moo ci topp nee selon Hawking avant le Big Bang le temps n'existait pas donc Dieu ne peut pas exister avant avant ce temps là pour créer l'existence à partir du Big Bang d'accord ma ngoog donc euh, kooku euh, kii donc li ñu wax sank ci affaire avatar gi demé non soxna Aïssatou Diop euh, sun docteur mo ngi wax ne lolu science fiction la donc te lolu lu dox la lu ñu xam la les films fantastiques ak films yu graw yoyu donc sank bi ngay wax tamit soxna fa Aïssatou docteur mo ngi mo ngi préciser né tous les médicaments qui ont tout tout tout médicament tous les médicaments ont des effets secondaire sans exception. Sans ah, exception. Ah. Et c'est la, la, spécialiste qui nous parle. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Euh, Machallah, allah ngir elle est dans le milieu sunu docteur Aïssatou Malick la plupart des euh, moyens de contraception utiliser les pilules et autres elles sont ah. euh, ils sont cancérigènes donc l'autre tamit information vous bu doy là, la ñu euh, Abdou le véritable problème de Hawking est le temps man bi ma lire ay ay œuvre lire le texte que le frère Modou Massina m'a envoyé loolu laa njëkk a wax dama ne kii problème am problème de temps là te loolu lu yomb lijjanti la du dit, ci université yonent bi sallallahu alayhi wa sallam en en en en une minute ñu jàngal ko luy temps mu noppalu waaw mu nga certains moyens de contraception sont même cancérigènes donc wax jooju moo gën a maandu noonu la ko soxna si waxee euh, euh, mu ne Sinli, euh, moi moo selon la thèse de Hawking notre monde se sera un jour gouverné par des extraterrestres mu ah. l'intelligence artificielle mooy loolu moom yaakaar naa toj nañ ko waxaat naa ko léegi yow waxoon nga donc euh, le frère Modou Massina mu ngoog moom moo moom mooy mooy kilifa gi les arguments énoncés par Serigne Diogou peuvent être retrouvés dans l'ouvrage de Stephen Hawking publié à, à, titre posthume sous le ah, titre ah, original de Brief Answers to the Big Questions. il donc a qu'à prononcé prononcer euh, dans Brief Answers to the Big Questions. donc euh, Mongok, mm-hmm. brève euh, réponse pour des grandes questions. Mongok, mm-hmm. l'auteur y rapporte une tentative de réponse à une série de questions dont celle nous concernant est la suivante. Is there a God? Ou littéralement, littéralement y a-t-il un Dieu? Is there a God? Donc, euh, euh donc dama de doon jox participation mbokk Inshallah, incha allah euh, delloo la kàddu gi su ko defee ñu mën a euh, tënk tay xam naa ni gars yi sëf nañ leen lu bëree bëree bëri ñu bàyyi leen ñu mën a moo nga comme ni ma koy waxee zikar mooy lekk lekku ruu waaye fikir ah fikir zikr mooy lekk ruu waaye fikr ah. moo koy moo koy digérer xam-xam tamit jàng bi am na solo waaye tamit eh, gëstuwaat bi di ko di ko di ko di ko dundaat moo koy mooy tax nga mën ko digérer mën ko jëriñoo bismillah xaaj Ndiogu bala ñoo tëj waaw waaw di di di sant yàlla di remercier gars yi yëpp ñoom Thierno Ratek ñoom ah, Mingok ak xaaj eh, rat xaaj eh, Masina moom tamit ñu ngi koy nuyu di ko ziar vraiment kurus gu kurus gu may yore moom bi mu jugee mu jugee ziare Fès moom moo ñu ko indil man ak Thierno Racine ak Thierno Omar. kuréelu Fass boobu. Hmm? waaw man ma ne kuréelu gi. waaw kuréelu kuréelu yi moom moom moo ñu ko indil. yàlla yàlla ko moom day participation day day am solo lool lool lool lool sax dafay moom ku ku kii la il est il tamit il est ouvert d'esprit ku baax la tamit vraiment yal na yàlla motali lépp. incha allah amiin amiin amiin Thierno Racine tey moom feeñ moom moo doon dugg expliqué. waaw quand même Thierno Racine mu làqatu ci ginnaaw rek.

boko lire en anglais mom moy gëna ki dal mom moy gëna fidèle ci wax ji ndax parfois traduction yi aussi parfois mëna am nga déggin be ko la yoy non effectivement ko dem ci pdf drive ding ko fo ding ko fa gis man livre yor na ko ni sama machine donc mais man man ko jël ci pdf drive comme ci comme ni mako ko joxe won débuté aussi mom la waxon comme référence ni ni ñi ko fa rek donc mom ñam ñi ñi koy remercier bu baax ndax tamit permettre na ma aussi ma ma gëstuwale Stéphane Hawking ak tamit xool tamit profondément def ay recherches ci moom dem fay tamit xool téléchargé ay PDF euh, depuis la conférence pour yëg bien que j'ai pas terminé voilà donc ñu ngoog loolu tamit lu am solo la donc di di di di ñu xamaat rek ni tamit euh, on a besoin de ça comme ni nga ko waxee toujours mm. l'islam a besoin de ça l'islam a besoin de scientifique l'islam a besoin de de de de de tous ses fils lañ koy wax ku nekk sa domaine ba nga nekk da ngaa war a gën a

<laughs> jàmbaar la de. <laughs> macha allah jàmbaar la de yàlla ko yàlla sàmm. dëgg la am na am na ci cinq bi xaw ma ligne euh, six bi. sa ñoo ngi waxtaan ci wàllu wàllu neutron yi ak euh, électron yi keroog am na uh-huh. am na yu yu doy waar yuñ ci wax ci même ci euh, kii yi même les xam nga yéen noo leen koy wooyee noonu xam nga kii bu ci nekk matière bu ci nekk am na numéro am numéro numéro kii am numéro uh-huh. ñi xaw ma eh, am na bu ci nekk 92 sax xaw ma ban xaw ma la fer la xaw ma la ki oh. waaw <laughs> waaw keroog euh, keroog waxtaan nañ ci table de la classification périodique table de na lool sax moo tax moo ngoog moo ngoog moo am na am na am na ay sew-sew yu ñu ci génne ah, di ah, ah. yu bu ci nekk di wane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi di wane yenn ci turu yàlla yi euh, ci wàllu fer xaajara si xam naa loolu tamit bu subaa dinañ ko tàmbalee dinañ dinañ ci may dina ko waajal incha allahu taala. dëgg la loolu loolu loolu dina am solo dina am mm. solo dina am solo. Mm. Mm. loolu rek ah, di di di remercier tamit euh, soxna Aïssatou. waaw ah, docteur moom tamit soxna moom kii kii mu indi moom moom moom mën na cee indi yu bëri de daa wax nii rek waaye nag. mën na ci indi bëri yu yu man après ay ay ay ay ay man ay gëstu ñoo permettre euh, affaire yooyu parce que man toujours dama ni dama dama ni moom nit lu mu créé war na am problème bu ci nekk parce que yàlla wax na ni lay lay faj nit nit ki million bam ba mu nekk la koy faj mi ngi ci biir million boobu du noonu sëriñ effectivement effectivement waaw léegi nag kon kon so kon yow bu ñu bu ñu importer ay médicaments jëlee ko Europe wala feneen ak feneen ak feneen ñu def ko ci kon sûrement am na leneen loo xam ni mhm. mi ngi koy def parce que ka defar loolu maîtriser wul lépp mais moom ka la wax ni la fajul ci lii moom moom maîtriser ndax moo la créé ku la créé kay moom moom maîtriser moom moo xam sa sa physiologie mhm. moo moom moo xam sa yaram na muy demee mhm. na muy doxale mhm. mais yow sa moroomu nit mënta xam li xew yëpp parce que la preuve médecins yi nga xam ne ñoom ñooy faj cancer ñu bëri sax parfois cancer mooy ndiray mhm. wala ñi nga xam dañuy xam ni sax day parfois ay spécialiste lañ ñoom parfois bi nga xam ne nekk spécialiste kon moom maîtriser wuñ lépp donc mi effectivement waaw donc mi ngoog mhm. yàlla baax na yàlla na yàlla dolli mais lii sëñ bi li daal li daal day gën vraiment xam ne tamit am na am na ñeneen ñoo xam te ñi ngi taxaw ci wet gi di di di di apporter seen contribution te yàlla xam na ni ñoom ñoo lay ëpp xam-xam foofu peut-être yow da nga am fit rek <laughs> waaye nag mi ngoog nit moom yàlla na yàlla na yàlla moo allah mais mais sëñ bi comme ni Thierno Racine waxee rek ni Stéphane Hawking ni temps am na tamit nit ki moom tamit noonu la waxee tamit ni am na ay ay ay ay univers parallèle mom la xé univers parallèle donc mom la xé tamit ni après comme comme ni mako ko won sank rek ni un jour viendra peut être mën nañu am ay extra direct mo tax ñu doon out ay comme ay genre si ay genre di di doon doon doon saytu jawu ji pour xol parfois ñu dégg ab ab ben bruit ñuy ah li kat bruit soit mën na nek bruit extra extraterrestre wala ñuy simuler ay seen mbir yooyu daal mhm. yalla baxna parce que mom dafa dafa wax ni comme big bang bi jugé na ci li te aussi ay proton ak ay euh, ay proton ak ay kii euh, ak ay euh, électron ñoom ñoo ñoom ñoom ñoo constitué yëf yi ba Big Bang mën am kon ça veut dire que comme am na fii rek war naa am feneen kon mm-hmm. sûrement war naa am ay ay univers parallèle mm-hmm. te suñ beneen univers ba aussi beneen race moo fa nekk comme te kooku comme xamuñu nu mu tudd ñu jox ko tur ñu jox tur extraterrestre kon koo xam ni c'est c'est kii daal mm-hmm. c'est homme supérieur à la terre te bu ñu ngoo yàlla baax na yàlla yàlla mottali lépp mais mais mbokk yëpp sax euh, jëwriñ Mbaye Fall Ndiaye di ko di ko nuyu ak ñëpp ngi xam ni rek ah, lu ci lu ci am ci erreur ci ci <laughs> xam ni ñoom ñu ngi ak ak Serigne yow mi nga <laughs> Ndiogou man yaa ngi xam saa man man man man ma gëstoo pare dama ni Serigne xam naa daa bëggoon Serigne man daal man laa euh, euh, Serigne daal xam naa ni man daal man la bëggoon dimbali rek. pour ma gëstu ci bi pour gën a am. ndax ndax ndax ndax euh, comme li nga defee woon ca ca waxtaan yi lii daf may fàttali waxtaan yi nga xam ni sa waxtaan yi nga xam ni yaa ngi ko defoon ca deux mille sept deux mille huit mille neuf deux mille douze tout ça te ma yor ko moom laay kii da nga maa ni ma waxtaan bu nekk na ko defal titre. te waxtaan booy defal titre donc ko war a déglu man nga ko déglu au moins quatre fois pour mën a xam loo ciy traité exactement mais loolu sëñ bi loolu man li ma jural pour xam sax parce que loolu te ah, am naa ouverture ci lu bare bare bare bare te loolu aussi waxoo ma déglu waxtaan dang ni ma rek waxtaan bu nekk na nga ko wutal titre je pense loolu bi ma ko doon wax c'était en 2012 message yaa ma ko amee par par Facebook Messenger yaa ngi waxoon ni ma waxtaan bu nekk na nga ko wutal titre mais kuy wutal titre waxtaan il faut nga déglu waxtaan ba comprendre lam cay wax pour mën a joxe titre mi ngoog mi ngoog daal nga xam ne yow chaque fois aussi sa pédagogie tamit c'est à saluer ndax euh, yow li doo ko wax mais da nga naan la yow daal def defal lii li ñuy li ñuy li ñuy wax rek commencement bi rek nga ñuy wax waaye ñun ba ci demee ñun buñ ji xaw ma nag ku topp waaye ku topp wax ji finalement ciy gis bare bare bare bare bare te loolu tamit ñu ngay ñaanal tamit yàlla gën a guddal sa fan vraiment yàlla gën la gën a gën a yàgg sa taxawaay ah toujours ndax toujours yaa ñuy sonn ci lu baax ci lu rafet ci lu yiw ci lu correct vraiment am relation yu baax ak suñu wéyjur ak tamit ñëpp ñoo xam ne moom la ñuy dundal am tamit teggin ci kilifa yi am tamit teggin ci képp koo xam ne daal euh, mi nga njabootu yonent bi la njabootu Cheikhu Tidiane njabootu Cheikh Umar ak keneen koo xam ne tamit moom euh, mindeef la ci kaw suuf yaa ngi ciy encouragé a a baax di ñaan yàlla yàlla yàgg sa taxawaay vraiment ndax moom mënuñu laa fay man moom sincèrement mënu ma laa fay comme je dis lii rek jàngaat naa ci loo xam ne man xaw ma ko déjà ndax booy gëstu foog nga lii te booy lire aussi bala ngay wax faax nga sa synthèse te boo defee synthèse aussi il faut que tamit nga mën a comprendre la ngay wax lan la parce que wax moom li ñu naan toujours di wax toujours rek mi wax moom tant que yaa ko yaa ko mi ngi ci yow yaa moom mais bu xasee bu génn rek moomatoo ko te ñu ne toujours keroog loolu la ñu mujjee wax. incha allah di la ñaanal rek yàlla yàlla yàlla jubal lépp yàlla yàlla barkeel lépp incha allah dañu ñu ngoog lépp xam ne ah part ne yàlla yàlla barkeel incha allah. alhamdulilah alhamdulilah xaaj Ndiob jërëjëf dafa mel ni euh, li dafa am kàddu gu am solo goo wax ci biir sa wax. Hmm. mooy dalal xel yi. Seydina hmm. Ibrahim yonent la te dafa bokk ci yonent yi ëpp doole. juróomi yonent yi gën a puissant ci la bokk. waye bi ko son borom laajee nako awalam tu'min xanaa gemu xanaa amo iman allahu akbar ab yonent yalla diko laaj lolou waye deglu lam ko tontu dane ko bala a kay a kay musuma la weddi te duma la weddi ma ngi lay ñaan nga dimbali ma teel ma sama ngëm bu ma la weddi mukk yow yalla waye li tax ma lay laaj li li yatma inna qalbi ngir parce que ngëm ngëm mbootum yàlla la secret yàlla la waaye nag conscience moom ci doomu aadama lay nekk mu ne ko dama bëgg sama conscience dal sama damir dal sama xel dal waaw ñu nit léeg-léeg dañ koy soxla waaw on a besoin d'être rassuré waaw assurance nag mënta jóge fudul ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam). mom mi nga xamante al amin al amin le digne de confiance celui qui ne trahit jamais celui qui peut même pas trahir il peut même pas trahir il peut même pas faillir à sa mission mënu ko sax far sallallahu alayhi wasallam. sallam euh, kon euh motax li am solo lol euh biñuy waja agal àggal xaaj bind na ne Euh, keroog bi ñu doon waxtaan maak moom da doon waxtaan ci ci euh, uranium uranium militaire ak uranium euh, civil waaw ño mongook terme la bu gaay ragal nag ñu wax ne moom numéro mooy quatre ba ñu toog ci biir métro bi di expliquer nan la yonent bi feeñee foofu ak nu mu waar ak la ca nekk yëpp ak li mu mën a def yëpp kooku xam naa incha allah bu subaa dinañ ko ubbee barkeeloo ko ci rasulullahi sallallahu alayhi wasallam euh, Haaj Moodu Masina euh, wax na ni euh, quelques extraits des principaux arguments de l'auteur Stephen Hawking Hawking y écrit anglais Nowadays, science provides better and more consistent answers. But uh-huh. people will always cling to religion because it uh-huh. gives comfort mm-hmm. and they do and they do not trust or understand science waaw euh, nañu sax ci traduction bi de nos jours la science fournit les meilleures et de plus euh, et les plus pertinentes réponses mais les gens vont toujours s'accrocher à la religion parce qu'elle donne un confort et ils ah. ne croient pas et ils ne croient pas ou ne comprennent pas la science gis nga donc donc euh, li ma doon wax ci xel dal te xel mu dal sakina sakina science mënu ko maye science li euh, euh, sakina dal li koy maye moy la ilaha illallah muhammadu rasulullah moy foi faith ngëm hein, tawhid, tawxid yallah. boole yàlla ci sa dund dund gu amul yàlla du dund mbokk yi dund gu amul yàlla du dund dund gu amul yàlla du dund doomu aadama il est intre intrinsèquement lié à Allah loolu il faut ñu xam ko parce que yàlla moo ko bind ba noppi fonk ko bind monde bi def ko ci service doomu aadama c'est très important moo tax képp koo gis mu génne yàlla ci dundam rek alku na réew mo gis mu génn yàlla ci dundam xalku na mooy tubaab yi lii leen dal ils ont tout mais c'est les plus malheureux pourquoi parce que euh, le euh, lu gën a tuuti tey jii sa ki ngay bëgg rek sa copine wala sa copain da lay yónnee message rek nga xaru message waaw sa xaj dafay feebar rek nga xaru ak lu nekk yu nekk gis nañ ko fii pourquoi parce que ils n'ont pas cette source

ak lépp lo xamanteni yaakar ngeen ni so lañ ko indé mu jëriñ ñep yàlla ñu yàlla boole dimbali wa akhiru da'wana an rabbil alamin wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inshallah bu suba suñu ñewé ñu ñu indi nak argument yi ñu yor jëlé ko ci rasulullahi jëlé ko ci alquran jëlé ko ci sunna jëlé ko ci sayidna ali ibn abi talibin waye ñu jëlé ko ci mawlana alcheikh alxaaji omar futi radiyallahu taala wa wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jaa ngeen jëf xaaj ñëw bu kon ba suba incha allahu taala. Insha, incha allah ok jërë ngeen jëf mbokk yi jërë ngeen jëf yalla na yàlla fay ñëpp yiw bismillah euh, euh, xaaj euh, xaaj Ndiogu soxna suñu docteur bi docteur Aïssatou malik nee na un de nos profs disait il faut penser simple dans les situations complexes mon ngoog c'est ce que j'aurais conseillé à Hawking gis nga ndeysaan ndeysaan gis nga kenn kenn kenn koo xamante ne amagul sax doctorat yi ci université yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ngi répondre au king moom Aysata moom moo ngi anticiper suba bomb yi nu war a dóor mu jëm fële ca moom <laughs> waaw nee na il faut penser simple dans les situations complexes tabarkallah te penser simple nag mooy wax laa ilaha illa allah muhammadur rasulullah point <laughs> ok jërëjëf salaamaaleykum a jaage jëf mbokk yi ok sopp nañ leen bëgg nañ leen ngir jëm yàlla yàlla nañu yàlla boole sopp fii ci àdduna ak àllaaxira ñun ñëpp yàlla nañ texe yàlla nañ dem aljanna wasalaamualeykum wa rahmatullah <laughs>